jërë ngeen jëf waxi yi woon keroog 31 décembre moom la yéene kay xëye tey 2 janvier discours à la nation bu président national bi li ci soleil national jàngat moo di njiit réew mi Macky fa mu tegoon ab tànkam ci social bi teg yu ko firnde bi journal bi nañu mooy président nee na bourse de sécurité familiale yi tolloon ci juróomi junni danañu ko yokk yóbbu ko ba ci juróom-ñaari junni dafay jóge ci 25000 dem ci 35000 wax na it ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk mu di 450 milliards dund gi ak énergétique yi koom-koom gi ak dundinu askan yi maanaam économie bi ak sociale bi direct news nee nañu mooy ñaari ponk yi nga xam ne njiit réew mi urgence l'observateur mi ngi ñu koy wax boole ceekit di ci waxtaan ak i yu ci seen xam-xam màcc ubbil yéenekaay bi urgence yi 2023 yi Futur Média bi nee nañu wàllu koom-koom gi la mu di économie économie lëj-lëj yi am ci géopolitique bi ñaaxo-ñaaxo yu ci justice bi ak aku transparence dig leeraange ci yorinu réew mi journal l'info nañu moom li mu gis ci message à la bu Macky bi moo di doxalinu nit ko troisième nekk cim xelam tir nañu loolu dafa leer Macky caaxaan génneewul cim xelam troisième te ñi am dégg-dégg ku ci dégg li mu wax keroog ca Tamba war a xam ne Macky Sall na troisième candidature ci tournée bi mu doon def ca Tamba yéenekaay yi xëy na di ñu jukkil sànce yu mag yi waa réew mi di xaar njiit réew mi bokk na ndakaaru dana mel ne Paris noone la ko journal Source A binde ci xëtamu njëkk lépp rek ngir tënkal ni mu jàngatee message à nation bu njiit réew mi bourse sécurité familiale yi Macky nee na danañu ko yóbbu ba ci milliards yi ñu war a génne ngir subventionné ci ay produits alimentaires ak produits énergétiques yi ay lycée ak i collège yu nekk ci réew mi toll ci ñaar fukk ak ñaar yu ñu war a defar bàyyi yu ñu war a defaraat ci 2023 gi 115000 yu ñu war a séddale ci ñaari junniy wilaas yii yëpp xibaar la yu suur soit juqee ci discours njiitu réew mi réew mi quotidien bind ne keroog 31 décembre Macky Sall concert de réalisation la doon def Ousmane ko concert de casserole la doon def Walf Quotidien nañu waa Yewwi Askan Wi ak nañu ko digge woon noone la ñu ko defee bool yeek cin yeek pot yeek xott yeek xotaat yi lépp doon jollee fu nekk ci réew mi suu soit nañu ay mbuuca mbuuc ay xale yu toll ci fukkeet ak ñaar jàpp fukkeet ak juróom benn ñoom la ñu gën gis ci concert de yeewi askan wi woote woon ci mbeddi ndakaaru yi ak ci banlieue ba ci xët mu njëkku la mandat Mamadou Lamine Massaly moo fa xëy di damat Karim Wade ubbil yéenekaay bi njiital parti bi di union pour une nouvelle république yàkk na fa Karim Wade luy tàkkate du fay li Karim Wade wax ci at mu wees mi jëmee ko ci li mu jàppee mal gouvernance ci nguurug Macky loolee moo naqari Mamadou Lamine Massaly ba tax mu tontu ko ba wis ko Massaly nee na waxi mal gouvernance Karim a mujjee wax ci réew mi li ko askan wi di ñaan moom Karim Wade Massaly nee na mooy mu fay leen seen 138 ba noppi nag soog di wax waxi candidature ak waxi malgouvernance triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 jël bi ko booy Niang 2 daan démb mi ngi tege ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool sunu lamb bind ne daan rakk daan mag lii la booy Niang 2 def waa kër Double Less daan na fi saakees démb mu daan Balla Gaye 2 ci ñaari minutes yu manqué juróom-ñaari seconde sunu lamb nee na ñu la Boy Niang 2 piégé Balla Gaye 2 ko bind ne Boy Niang 2 dafa toroxal Balla Gaye 2 le la Gaye 2 bés bi le jour gis na ne la woon woon na Balla dafay bëgg a jeexal ma jeexal ak li ñu Walf Quotidien moo xew ca Saldé ga ca Fuuta yëral xët mu njëkk yéenekaay bi dafa am ñu seen mbokk faatu ñu demoon ci armeel yi doon ko suuli waaye ay yamb moo leen dàqe ci armeel yi ñoom ñëpp bu ñuy génn armeel yi yéenekaay bi nee nañu ay daw lañu fa génne